waaw tey tey bés bi bésu tiis la bésu naxar la bés la wante ne tiis pour euh, démocratie Sénégal parce que tey xool lu toll na maire nga ni ko escroc la escroqué kan si lan ñu ne escroqué na maire yi mu doon jiite la ko escroqué si budget bi nga xamante ne juge bi nangu na ni xaalis boobu maire Dakar moo ko moom xam nga loolu xel xel sax mënu ko mënu ko mënu ko nangu mu nekk bés bu tiis parce que damay damay fàttali ba fii Nicéphore Soglo ñëwee xam nga Nicéphore Soglo dafa nekkoon président Bénin après jóge fa nekk maire Cotonou nee na ba mu nekkee maire la doon xam lan mooy président parce que boo nekkee président da ngay gérer ay chiffres rek alors que maire tu gères le réel xam nga Macky Sall xamul lu xew Fatick xamul lu xew Ziguinchor alors que maire de Dakar xam na lu xew dëkkam un maire dafa am lion bu fort ak dëkkam tey boo ko nee dafa escroquer dëkkam ça c' est choquant humiliant c' insultant et c' est à la limite débile pour la du Sénégal donc loolu